vérifier ñaari mbër yi euh, Alaaji Garmi. xel dem na Dakar waaye xel dem na Sénégal ñu ngi leen di féete ñoom ñaar ñu ngi leen di xool ndax diwu nanu xool seen loxo xool seen baaraam ndax diwu nanu ndax dagg nañ seen wey wey ndax dagg nañ wey ndax yoruñu luy gaañee loolu yëpp buñ ko seetee ba pare nag dañuy woo ki nga xam ne waaw ndax indi na kii tey de ménager bi mooy mooy mooy entraîneur bi première lambu fii ci Europe Alaaji Garmi jaay nañu ko lii la ñu bëggoon Alaaji Ngagne Diagne on a atteindre notre objectif ndeysaan Pape noonu ak Mame Alaaji Ngagne Diagne voilà bon attention ko faxal na ko Mame Balla faxal na ko bañ jëm na ko sulli attention Pape Mor Lo na ko téye xar ko attention Pape Mor Lo ko téye dafa wàcc léegi faxal ko Mame Balla mod na wet la ñuy bëree sajj na ko mu ñëw da ko oh. oh gars yi tàccu nañu. Lamine loo wax. ndeysaan ñoom ñaar ñi ngi demee ca ay loxo. Badiane euh, ñun combat bi dañ ko comprendre bu bëree dóor la bëri bëri seen. non bëri dóor la. waaw bëri ni ñu comporté woon nii. bëri dóor la donc amul bëri sam. ak ñoom. si ah, mais gars yi dañu ne du ci bokk lu ko waral. dañu ne. gars yi gars yi. yi ñuy dafa xaw a rëy te dafay fesal loxo. bëre ndam yàlla ko yor defal fu la fayda nga xam ne tubaab bi bu xoolee li li ñuy def waaw ah waay làmb ji jeex na làmb ji jeex na parce que juróomi avertissement dañuy arrêté bëre bi man Balla euh, sa bëre beeg euh, Pape. waaw père xam nga bëre bi ñii ñu ngi yaakaar ay affaire ko ñu euh, amu ci quoi waaw Modou Lo dafa nekk ci benn benn dynamique de défaite man tey ma xaw ko jege tuuti quoi xam nga ma la boo xoolee à chaque fois combat yi man maa ngi teg sama tànk ci kanam moom muy teg tànkam ci ginnaaw. comprendre ma la sori man dóor naa ko dóor naa ko di ko bëgg a eggale mu daw génn saako yi mais man xam naa lim foore man maa tëj bëreem comprendre ma la jàpp ngeen mu def ak tegal sées man dama koy bañ su defee loolu damay bañ mais ko chaque fois man de bu ma ñëwul asaaloo sama combat quoi. bon gars yi dañu ne yaa ngi Mame Balla da ngeen waxtaan combine loolu loo ci tontu. parce que premier temps lañ bëri mu jeex limitant normalement avant nañ avant nañ 15 minutes normalement dañu waroon bàyyi ñu bëriwaat ñu xool quoi. mais lan ngeen signé bëre door ma la bëre sam. non dañoo ñëw ko fii ñu baaxul quoi. waaw gaay baaxul la ñuy wax. waaw ñu nag man comprendre ma quoi man pour man dañoo signé dañ ne rek dañoo ñëw ñëw leen bëri. waaw ma ñëw bëri ñu jékki-jékki ñu waxu gaay na bëri la affaire yooyu. Youssou Ndour moo féete ni joor Matar Gueye féete càmmoñ muy ñaareelu combat soirée bi fii ci Paris Bercy ñu ngi leewaatoo fii ci Paris Bercy attention daw na jël ko Matar jël na ko Matar daw na xeex daw na dese doon nañ ñoom ñaar Youssou crochet na ko Matar téye na ca peggu ngemb la waaye Youssou ko crochet attention attention Matar Gueye Youssou Ndour dama ragal doole feeñ fii Matar Gueye Youssou Ndour attention mboot ma Youssou kor na ko mu ngi koy jéem a fax attention daf lañ gën na ko attention voilà xeex nañ xeex métti daw na jël ko crochet na ko attention Matar Joor daw nañ jàppante ndeysaan na nga rofoo ñoom ñaar attention Youssou Ndour Matar Gueye faxa dur na ko waay Youssou Ndour daan laa ilaha tex da tex daan na bilaay maa ngi a baax. lan ah? ngay parce que presse bi dafa rayoon. am pression. comme c'est la première di tuur mi mi ngi dugg si moom Bombardier. voilà drapeau bi la nangoo. voilà Bombardier ngi dugg voilà ki nga xam ne mooy Santang moo jiitu yore butéel bi voilà champion noo ñëwee tey. waaw xel mu kontaan la. arbitre sifflé na. voilà diggante Super Étoile ak assurance Alaaji Garmi fii ci Père Birti. ñu ngi leewaatoo ñoom ñaar waaye ñu ngi jëm ca lang Jaañ assurance Super Étoile. ña nga ca ñoom ñaar. combat bi yemagul le 8 juin. attention doomu la door léegi. attention doomu la jël coup assurance jël na jël na coup waaye dafa bëri waale. gis nga mais nga jaaj. assurance jël na benn coup léegi. jël na coup. ah, ah c'est libéré. mais nga jaaj ardo bi tubaab la. arbitre bi sëf la war na garmi fii ci Paris Bercy. Super Étoile assurance bu bu Fass te jóge Mbour attention attention même na dootoo bëri crochet attention laaw na crochet gi daw na xeex attention kawo attention ña ngay xeex ñoom ñaar ma kaw doom attention ña ngay xeex ñoom ñaar ci bëri joal gam attention la ilaha illallah oh xeex bu dee daan na ko daan na ko super joal daan na ko dafa dóor coup dafa topp xeex bi coup perdu dafa topp bi te ci bi daan ko super joal daan na ko daan na sira jël bu set wecc avertir na ko dafa daan dóor ko avertir na ko Diagne waa jox na ko ndam. mais bi daan xumbal fii tey xumbal na fii. non la ma la waxoon. loo Youssou ni muy toje fii. noonu man Super Étoile noonu laay toje fii. Oh, oh, oh. ñëw ma fi pour daanu. dafa am ñu nekk sama ginnaaw. xam nga ma teg sama bët fu sori. kii taxumaa jóg. sifflé na attention mi ngi jiital gauche moom Elton bis mi jiital droite. voilà ñu ngi leen too ñoom ñaar alaaji gar bi ko waaye garde yi wàccul de alaaji ngañ jaaj ah yi wàccul ku sa garde wàcc nga daanu combat bi combat bi dama ragal mu am kaw de ah waaye Ardo ngi toog jaaj bu xeex bi yàggee ah dina metti eh ngañ na bu njaab yàggee nga war feeñ nga war feeñ parce xam nga bis bi dafa bëgg a dem Elton am na fu mu yem ñoom ñaar dañu bëre woon waaye Elton dafa xaw a da ko xaw a bàyyi woon ginnaaw tey mu demee ko fii ci biir si attention doon na xeex. kon sëñ nañu wéy eh gàncax xeex nañu ko gàncax. ilaha illallah daw na jël ko Elton door ko ñaari rappel léegi attan laa si waat. waaw toog as na léegi moom Elton moom Elton. bi nooy attention bis bi. ci biir attention bis daan moo ko daan moo ko door moo daan. ilaha illah dafa contre dañ ko contre. ah dañ

ah il est confiant waaw ah waaw il est très a wane ci làmb. tey Abdou ñoom ñëpp war nañ koy def ah. gis nga baa ngi fecc ak xale yi defe ah, ñu ngi noonu Balla ah, ñaari mbër yëpp dugg si nañ ci affaire bi. ñoom ñaar ñëpp dugg si nañ ci biir defe tey.

maa ngi lay fay El maa ngi lay fay di la gërëm ci sa wax ju rafet parce que yow da nga bokk ci ñi nga xamee ne pour defar ëllëg dañuy fàttali démb parce que tey am na solo ëllëg am na solo waaye démb amoon na solo.